tubaar fa sama xarit bi le say xeetu airpod baax na waa jànk foo amee lii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 Quand on nous fait qu'on l'envie, dorogi, garni pirne. Amondo sidi njak bu brok maktab, jago jiri mace alawa. Ganjol sakarma, dodoro sakarma, ci sagay sakarma. Quand on nous fait qu'on l'envie, dorogi, garni pirne. Amondo sidi njak bu brok maktab, jago jiri mace alawa. Ganjol sakarma, dodoro sakarma, ci sagay sakarma, nyambul sakarma. quand on nous fait qu'on dorogi, garni pirne. Amondo dosi njak bu mata maktab, jago jiri mace alawa. Ganjol sakarma, dodoro sakarma, ci sagay njàkkere jaayum keur wala terrain ci mim réew fi wala location mo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayel sa produit mu gëna gaawé mettre en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga soxla wala ñu soxla terrain wala bëgg appartement wala studio bu ko défé ñu ñëw sa biir keur dal lay fotol sa wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio un ay photo yu un euh, ak ay vidéo yu doy d'ailleurs un di koy page social shopping immobilier beaucoup de faits, Yen, 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër ce